jërëjëf Bamba merci yi ñu ba jeudi bu 16h jotee ñu ànd ak yéen gunge leen destination bi 17h jox leen lépp loo xamante ne ambiance la li gën a jeune jox leen li gën a fun li gën a neex dugg ak yéen ci culture divertissement ak lépp loo xamante ne mën na dab seen bànneex ajaratu aasi tay daa daw li tax mu daw man xam naa ko ci kanam dinaa leen ko nettali waaye lu jiite loolu ma dalal alaaji Papa Ndiaye suma mag suma xarit waaye yaa mën a sañse nag Ndiaye yow mi yaa mën a sañse billaahi Bamba dégg li ma léegi <laughs> foo jëm. ay waay ji non damay doxal su ma yëgoon su ma yëgoon du ma tudd sa sañse bi sax. non xam nga boo mënee sañse da ngay bëri tiitar. simple oo oh. rawatina nga nekk booy Pikine. simplicité zéro jaar syndicat ci buru bara bi. <laughs> nekk benn waga yaa ma gën a xam walla dëgg la mais di la bëggee di la kontaane maa ngi lay bëggee bu baax di la wax ne tey moom bëggoon naa sama doom ji seetaan émission tey bi <laughs> ay maam Cheikh a bëgg simb waay maam Cheikh simb la bëgg doomu taalu yaay ji bu ne mu def ko ñëw na baax maa ngi lay gis mhm. alaaji Mara ca TikTok ba ma ngay jàpp ci promo ba mhm. waaye noonu la rek ah, ajaratu aasi fii bu fi yabati kenn. <laughs> ndeke moom gaynde la ragal. ndax yow ragaloo ragaloo ragaloo kenn ko dul gaynde. dama ko diggoon ne tey dañuy suuf moo tax mu daw. ak ay eh, am na keneen ku daw <laughs> ak kan moo dawaat. Ah, am na ku daw daal. ah waaw parce que man bi may oto mi ngi woon ci suuf. man loolu ma ah, xam naa ngay wax. kan la waxal ko sa bopp. ah ko maa dugal. xam nga ma xam daal man l'essentiel boo mënee nag nga wax soo waxul nga bàyyi ma ma noppi. Papis Mbaye la non du Papis Mbaye man ki may wax jigéen la. Ah. yor benn range bu giri est-ce que sant Ndour. sant bi amaatul fay. nan nan la ko defee ci kanam. kon moom tamit ñi ma wut si. en tout cas daal bi may yëg oto bi romb naa ko suuf. gaa yi yegg si ma wàcc gisuma xaw ma ko oto bi jaar ma. Mara gëm nga ne tey am naa mbetteel. ndeysaan tey laa gis grand dame buy daw. <laughs> am urgence mu génn waaye la c'est une koy wax léegi morceau boobu nga xamante ne actuellement mu ngi ci YouTube bi di ko toj muy xëccal lu bees tàq alaaj Papa génn ko euh, li ci bàmba di def looloo ko li ma ciy def looloo ci war ah. ndax li nga moom ak li nga bokk li ñu la boole waaw ah. mën ta yem dompat sax ci sot la bokk loolu suñu yëf la xeexu mbooloo lañ koy def doo xam ku njëkk a dóor déedéet bu ko defee nag li faral di waxee léegi-léegi mën na la digge bor la te ñàkk koo jëfe war la waaw waaw démb ñoo ko wax en direct ne tey dañuy simb tey dañuy dekkal cosaan dañuy dellusiwaat ci li nga xamante ni suñu culture la bokk parce que tey Sénégal am nañu yoo xamante ni ñun rek ñoo ko am xam nga tay làmb dëkk yu bari am nañu làmb dëkk yu bari boo demee Chine sax am nañu lu ñu tuddee defe naa chimo euh, xawma chamo lu ñu ko tuddee mm-hmm. mooy ponkol yooyu di buuxante waaw boo demee Amérique am nañ boxe am nañ king boxing ak yeneen ak yeneen donc sport de combat yi bari na am nañu yeneen culture yu mel ne ndaw rabbi nag yeneen ak yeneen dëkk boo dem am nañu seen xeetu fecc mais il sa xam ne simb Sénégal rek la waaw foo lion moom foo lion Sénégal rek la am amoon naa ci benn waaye yaakaar naa ñoom xam nañ ko ma nga Angleterre ba léegi mm-hmm. ma nga Angleterre ba léegi moom moom moom bu bu gars yi def contrôle cultural week yi moom mooy jël parc parc yi li naan parc mhm. journée parc yi comme heure yi waaw ñëpp ñëw ci parc yi boisson yi jolli mhm. def barbecue yi moom moo des affaire simb yi mais Mara xam naa ne yow bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay bi ngay doog a nekk booy bande noonu di dégg Sadio. waaw te avec Sadio. jusqu'à la mort Sadio. te gis avec Sadio. gis ka la <laughs> wallaay ndeysaan ñu ciy topp di daw fa ñu jaar ma wallaay wax nga dëgg. <laughs> loolu neex xarit nag ay xarit simb kat moom man simb simb dama ko daan topp bu baax Papa Ndiaye. doon ma maa la def ñàkkal fay la. <laughs> fay Sadio di diis avec Sadio. Eh, percule yow. Sadio avec Sadio. donc tey maa ngi képp koo xamante ni Faux Lions la rawatina seen association boobu fédération des Faux Lions mm, nuyu association des Faux nuyu bu baax a baax ñànka nuyu ay niina ñoom dama cee bari woon ay xarit bi may nekk gone ñoom rek laa daan topp di leen ñu dalal ci kenn ci ñoom koo xamante ni nag il est plus à présenter ci wàllu simb xëy na bu caméra bi euh, euh, focusé ci moom nit ñi mën nañ ko bañ a xàmmee waaye bu ñu déggee tur rek xam ko xam nga gaynde yi ñoom li ci garaaw boo leen gisee nii solo dañuy wute buñ okkuroo waaw saxoo ba set ba dindi okkur bi waaw laal jasneer laal nga xam ne ay ndaanaan la boo ko xàmmee boo ah euh, suñu kilifa la dëkk ci Pikine moom itam représenté Pikine euh, def lu bëree bari ci simb xale yi doon ko woowee Ama Cuqale da la ko xale yi doon woowee bu ngeen gisee euh, bokk na mën naa wax ci ñu njëkk sol ni ngeen di woowee mbubb yi cu cuxuri waaw ci ñu ñëw njëkk a sol cuxur mooy lan ci mbir ci yi mooy yooyu am karaw yi noonu bari noonu ci nga xamante ni ah ci ay xaadim laam xaadim Guèye ñànka ak moom mi di Ama ñu dalal ko tey fa yéene waxtaan ak culture simb donc plaisir la grand bi dañu lay nuyu d' gaynde yaa ngi fi ah am na ay surprise yu bari yu xew war a xew ci plateau bi suñu paree ñu ñëw soog a yaatal waxtaan bi ñu ngi lay dalal. waaw Mara nuyu la bu baax a baax di nuyu suma frère Papa Ndiaye. Mhm. di nuyu Sénégal yëpp. Mhm. di nuyu association des folions. Mhm. di ci jiital ñànk mi nga xam ne moom la yàlla jiital mu nekk président. ku lu kuy gaynde di nuyu ma jëy vice président bi di nuyu association bi yëpp. Mhm. ñoom Vieux Maguette ñoom Aliou Mboub. Mhm. ñoom Baba Ali ñoom Iba Diop ñëpp. di nuyu nag samay ñaari soxna surtout balaa mooy commencé. Mhm. di nuyu sama yaay d'abord ak suma sœur Jeewo di nuyu samay ñaari soxna surtout njëkkee sama aawa muy ki Nefal. di nuyu Fama Niang di leen nuyu ñëpp nuyu waa Pikine yëpp. dañ wax pare naa lépp loo ma laaj simb rek incha allah dinaa ci waxtaane ko tey moom simb la ñuy <laughs> <laughs> xam nga démb Asi wax na ko nee na moom carrément du ñëw parce que day gént gaynde su ko gisee. mais li garaaw mooy man miy présenté émission bi man ñëwee ma gaynde. bilaay. non je te jure. heure bii de daan na fekk ndeysaan surtout nag man li ma metti Ama daf maa tooñ Ama mënoon na ma indil ay Ama ay Amadou Kéfi. wala ngay indi loolu ma ay booy bii euh, booy bi nu mu tuddati waay. ñoom Papis. ñoom Papis waaw. ñoom Buuba ñoom Buuba ñooñu ñeme naa leen. wala xaajul man man man Modou Dane ñeme ma ko. mais gaynde ko mag la moo tax. <laughs> loolu la gaynde gu ndaw de. <laughs> on va mag la la indi mais heure bi waaw Mara daan na fekk ndem si yàlla ndongolo ak Yves Niang. te naan gaynde Njaay. mënoo ko de àll bi yaay ba mu na. <laughs> Ah, gaynde Njaay. yaa way loo nga ma rek te du ma woykat waaw déedéet yëf dafa am fo laay laay léegi laa way loo te du ma woykat sa kaja ma kaja aw bii aw baa aw li baataa baa yuuxu yii wute naa ko yuuxu démb yii maa <laughs> bi nga yuuxu fii <laughs> armoomit armoomit sa kaja ma kaja bul jaar ci kenn jaaral ci ki leen fi indi muy seen i kilifa kee sallallahu alayhi Muhammad wali Muhammad hey jinne hey jinne hay wali wali jinne wali wali sababu jinne sallallahu alayhi Muhammad wali Muhammad hey jinne ay jinne wali wali jinne wali wali saabaabu jinne tari tari kunta tari tari basa nan dem ñëwul Mara ñëwul. tari tari kumpa tari tari basar mooy taxaw du ma ñëw. loolu boo ko déggee gaynde mooy tëdd leen noppalu. <laughs> man Papa Ndiaye kaay wax la benn man dama doon organiser simb sama kër. bu ñu ñëwee maa ngi ñoom ñooy toog waxtaan añandoo. mais buñ solo nga mais buñ solo ba pare ma doon kër gi parce que man ñeme wu leen. mais mais aawul lan mooy lan mooy lan mooy aaru simb simb boo ñu expliqué lan mooy simb. waaw simb tuddul simb. sumb mooy maanaam lu ñu bokk man ak yow Papa Ndiaye ñu def ko ne kan organiser sumb tànn beer wala sumb xumbal am ñu ne kañ def sumb gaynde hmm. mooy sumb mooy lu nit ñi ay nit booloo def ko la. waaw sumb dara. sumb dara nañ sumb dara mhm. ñu bari nag comprendre ñu dañ jël gaynde rek tuddee leen simb waaw fekk lu ñu sumb la mhm. mais kaa leen def sumb gaynde wala ñu def sumb tànn biir wala ñu def sumb xumbal wala sumb dara rek muy yëfi mbooloo waaw mais culture la boo xam te ni maanaam mhm. comme li nga wax sànq nekkul lu ñu jéggaani mais Sénégal dañoo desee xam valeur am ndax bu ñu ko xamoon dañu koy téye te réew mënul dox sans culture te culture la boo xam ne doo dem benn dëkk fekk ka fa dëkk di ko def boo ko fa gisee rek xamal ne sénégalais bi moo ko fa yóbbu. waaw mën nga dem dëkk fu ne fekk fa làmb fekk fa jëmbe fekk fa lu ne mais simb rek la nga xam ne ko moom xam ne doo dem feneen ko fa ku dul doomu Sénégal moo dem ba foofu def ko. Hmm. loolu gouvernement ko war jël téegoo ëmb ko valoriser ko xam moom mooy lan ndax ñu si nekk xam nañ moom mooy lan te jox nañ ko valeur am ndax ñun xale bi fukki dërëm cent franc la ba yóbbu simb ci bi téeméer mille di ko dugal ci hôtel yi groupe boo gis tey mu boot lu mat 40 personnes 50 personnes. nga ne yow da ngay def emploi des jeunes kon kooku mi ngi lay jàppale ci am jàppale ci bi. ndax tey ñànk mi boot lu mat 40 personnes chaque jour bi mu ñëwee ba fii lañ changé adversaire bi wax nga dem ndar ma mm. jëy mi ngi fa boot ay gonem mm. baale bi feneen ak feneen Kébémer as mbay nga fa ku ci ne boot nga loo xamante ni te simba kaa ma xamal la Pape dina am mbiri ci nekk mm-hmm. nga xam ne Sénégal da ko war a téye mm-hmm. bi ci njëkk mm-hmm. mooy xoolal li mu formé li mu génne école la li mu génne bu ma ne le moo génne Ndongolo waaw ne le moo génne Yves Niang ne le moo génne Khadim Diagne ne le moo génne Sidi Diop bii tey génne ñu bari tey ji ni génne ñoom Bas Mbaye muy tëggal Kéba dëgg la tey ji mu génne Maysa Ndiaye génne Sadio Ndiaye génne Sadio Ndiaye génne Maysa Ndiaye muy tëggal Wally Seck mm. ñooñu ñëpp tey sumb moo leen formé tey ba ñu mën a tëgg ndaanaan dëgg bu njëkkoon ci simb lay génne ci simb lay génne moo xam muy fecckat mbaa muy way ma ne loxo tëggkatu simb bokkul ak loxo tëggkat benn dëgg la ndax parce kii la dàq tëgg ci simb la jaar parce que bu kii ne bërit nga topp ko kii ne bërit nga topp ko lu mat fukk génne nga leen topp tëggal benn du la jaaxal na kenn bërit booy topp yëfi ndaanaan dekki na waaw yëfi ndaanaan dekki na tey wax nga lu am solo mais mais Mara déjà ñoom man li ma bëgg a xam mooy façon dessiné yu yu doy waar yu leen dessiné seen kanam parce que kii boo gisee nu mu soloo nii Mara lii aar dëgg dëgg aar la aar lu doy waar la ba pare yombul nit ñi ma leen lay gis ñu daw di dàq xale yi di solu mais lii dafa métti parce que boobu ba léegi ñu ngi te gisuma benn métier bu gën a metti métier bi wala du dëgg ah kon donc suñu aada ak suñu cosaan lu war nañ ko mën a fonk ba pare man fi may jëm ak yow Mara am na lu mu la laaj lan moo tax bu njëkkoon ñun ñii ñëpp man dama di bajaan Yves Niang Ndongolo simb ba amoon xale yi gën a rafet ndakaaru su ma gën di gisee Mara dëgg la boo bëggoon xale bu rafet rek boo bàyyi woon ba cinq heures six heures da nga naan simb sa dem pour gisu ko mais lan moo tax léegi xale bu nit di simb xale yi ndaw yi kese nga fay gis lu waral lu waral kii boobu rupture boobu pour pourtant Ndiaye euh, dañuy jamono jooj yow yaa daan seetaan simb. waaw. ñun génération bi doon seetaan ñoom Sadio. waaw ak génération bi mag léegi di ñu seetaan. bokkul dëgg naa dëgg. nangu naa loolu. damay dégg léegi gars yi naan simb amatul ma ne la da nga da nga kaa seetaanatul. mais am na beneen génération bu màgg di topp ñànka di ma topp topp mëjee topp Baba Ali mhm. fu Baba Ali lang ñu lang fa tey la fa jigéen ñi gën a rafet ji gën a bari nga moom moo ko def ci gaynde gaynde moom dañuy am bayri jigéen moom jigéen ñi gaynde rek ngay gis mu commencé solu deux heures ah kon da ngeen nangu gelu jàmbur yi non duñ ko nangu maanaam yow nag nekkul koy nopp dëgg la loolu jagle suñu borom la am na ci nawetaan yi am na ci làmb ji am na fépp dëgg la si mu bokk na ci gën a néew violence ci ci mhm. Sénégal si mu amul violence mais Papa Ndiaye mooy Papa Ndiaye fi muy waxee mooy mhm. bu njëkkoon genre ni ñu ko joxe woon valeur ba nga xamante ni kilifa gi sax mën na ànd ak soxnaam ànd ak ay doomam dagg tikkee dagg tikkee teg sees bu baax teg sees bu baax toog mu nekk loo xamante ni genre dafay dafay dafay am benn benn niveau maanaam bu ñu woon simba am na samedi bi événement lay doon voilà voilà luy lay doon foofu lay waxee diriyanke yi préparé ko dagg di génn solu gaa yi baax yi ñëw toog mais est-ce que tey euh, amul fu mu jugee wala est-ce que nekkul dafa am lu ci dugg lu ci bokkul wala lu ci manqué lu tax peut-être valeur bi ko ñu bari joxoon peut-être tey ñu xaw ko ginnaawal non bu dee ci wàllu culture bi. Mhm. dara manqué wu ci dafa yokk sax. ci culture bi ci culture bi li ci war a def yëpp ñu ngi ko ciy def. Mhm. di ci créer di ci boole yeneen jox xam ne maanaam da koy gën a jox a téye jox simb valeur ba tey ñu soxlaa simb tey ñu dem ñu may ñu autorisation. Mhm. ñoo ko valoriser wul. parce que loolu tamit seen problème la. ndax état bi état bi ci boobu. dafa xamul tey ba lan mooy valeuru simb. ndax ñun jëm nañu ko xamul ba sonn mais ñoom jéemuñu koo xam te tey jii kaa ma xamal la benn culture ëppul doole fii Sénégal simb amu fi amul lu fi ëpp doole Sénégal tey lu boot ay 40 personnes yoo xam ne maanaam dëgg la si lañu yaakaar dund ci yaakaar seen kër yaakaar ci leen groupe yu gaynde yëpp tey nga leen doo fi simb mais Mara imagine tey moo waroon simb tey ñu ne ma gouvernement bi ne ma tey da ngay dagg autorisation 5000 chaque jour boo kii 5000 la boo defee 3 jours du 15000 hmm. bu ko ñànk defee ma def ko keneen ak keneen def ko tey amul lu jëm ci keesu réew mi weer bi xaalis la dëgg la la weer bi xaalis la dëgg la xaalis la bu bëree bëri mais même s'il le faut bu dee dañuy xalaat problème de sécurité ak yooyu ñu boole leen ak ay agents de sécurité ay GMI ay GMI ñu ñëw encadrer leen de telle sorte que hmm. débordé ko hmm. pour lan. mais est-ce que tamit yéen da ngeen war a sans autorisation. mais parce que dañuy def bind demande. xam nga nit balaa ngaa laaj say droit da def say devoir. Eh, balaa ngaa laaj say droit defal say devoir ba pare ñu xam ne suñuy devoir mooy lan. Mhm. ñun ay Sénégal fi la ñuy fi la amee jabar fi la amee doom bu xam nañ fi ñuy jaar pour am autorisation. ay bind demande. nga yóbbu ko préfecture. def fa mu def fa deux jours nga dem ñu nangul la wala da nga wax ñu ne simb aj nañ ko. waaw loolu moom dégg naa ko. ci la simb dañ ko aj carrément te dootuñ ko may. simb bu ñu ko ajee leen daa am violence. xanaa kon kon lamb dañ ko war a def prier mu dem. wu yaay jël nawetaan def ko prier mu dem. dëgg la mais ñoom Sadio mi ñuy simb dañu naan rek du am bâche. du am bâche mais ñun léegi dañuy bâche fii bâche fii jox sa mu gardé ñu porte bi jox sa waay mu gardé ñu porte bi mais kon kooku mi ngi wàññi loo xam te ni moom leer na ko moo la man mu am simb les gars yi ñëw monté ay chorégraphe yu toog yu rafet yoo xam ne yow mi toog da ngay sa mhm. ah. def mhm. boo xësee ba jënd sa biir toog ci biir mhm. da seetaan spectacle te c'est important nag spectacle yooyu ñu may leen chance ñu mën koo découvrir comme li ñu def ni tey gars yi man simbakat yi may gis léegi ñuy feet non Mara dañoo mën a feet ba pare tëggkat yi dinañ tëggal lu kenn dul dindi pour wax la li mu daan wax ne la woon sax mënoon naa ëpp ampleur mais mm-hmm. léegi mm-hmm. la gars yi gën a am spectacle boo xamante ni yow miy ndaanaan mm-hmm. boo ko seetaanee da nga ci gis sa bopp mais mais bu yàggul dara am na ku fi organisé woon benn concours au grand théâtre waay organisé woon simb boo xamante ni chaque dimanche gars yi dañ doon daje doon ay groupe yu bari waa Mbour waa Dakar gars yi jógee ci région yi ñëw ñu simb su ma juumul après ñun ñoo ko jël waaw ñoom ñoo ko gañe woon ñoo jël coupe ak ñoom ñànka ak ñoom ñànka boole lépp def ko dem jiyee ko mu nekk lu rafet du ma ko mën a tuddee ca concours waaw lu waroon am la rek ñu waroon ko def ñu gënoon xamante def ko spectacle yàlla ne kii la kii jox ko mhm. ndax parce que ñun bi ko gañee waa Mbuur ko gañee waa Kawlax ko gañee kenn ki parce que ku bu simbu la rek ñu ñëpp ko bokk mhm. euh, dinañ ñëw léegi-léegi ci lam moo la simbuloo lu la def gaynde lu la ci dugal dinañ ma wax aussi aal bi ne ci ñoom parce que ki may toogal ñii di waxtaan man boo xoolee ki may fekk ci baas yi ah <laughs> waa ji sol bagage yi karaw yooyu kii ko waaw xaaral naa yónnee Bamba benn photo léegi mu affiché ko pour gars yi xam Euh, xëy xëy na waxtaan bi moo tax solowul parce que ñoom bu ñu soloo duñu wax xam nga gaynde tamit dafa bari secret de papa ngoom noonu laa daan def de papa ngoom bu soloo nu pare xàmmewul ëmma ma ah, ah, mm-hmm. xarit mooy ñëw Modou Diagne mm-hmm. moom dafa bokk ci gaynde yi may daaneel parce moom dafa am cosaan soo xamante ni euh, simbikat yu bari duñ ko def xam naa loolu tamit dinañ ci waxtaan parce que yi léegi ñu ci bari bu ñuy solu dañuy sañse déguisement yi moom ay sañse lay doon ay couleur lañ koy def ah seen yaram du feeñ mais Modou Diagne du solo Bamba génne ma Modou Diagne <laughs> bu diwoo ba niin waaw ah. ah, dafa bëgg la muy def takk affaire yi noonu da xool nga gis culture bi ah, gis aaru gay léegi loolu moom lu ma lu ma neex la ci ci moom te bokk na ci li tax man may dem di seetaan euh, noonu la mënee tëgg sabar ànd ak la mënee tëgg sabar day tëgg sabar ah kii maanaam sabara ko dugal ci simb sabara kër Adama Ngom la jógee non kii kii nag da cee màgg nag kii nag moo war a simb nag am nag rakam Papa euh, Jara Papa Jara euh, moom itam muy xale waaye tamit di def lu am solo hmm. euh, gars yi yóbbu leen Modou bu paree Papa dem leen xool 500 xaalis. dama leen tar moo jaañ nag gay bëgg xaalis la dama leen taral la ngay xiiru boo xiiroo dama koy bàyyi man dama ma xiiru. 1500 xaalis dese woon xaaral ma séddale. woy yaay. Papa Ndiaye bu rëy sama taw sama taw faay. <laughs> mais teraanga la teraanga du tuuti. sama taw faay bi bu ko xeeb. teraanga du tuuti sama taw faay bi bu ko xeeb. barke Sëñ Baba. sama taw pourtant ëpp na taw faay sax. damaa juum de pour man taw la nekkati tout taw la. muur boo paree dara wecc da nga boo paree wecc waaw waaye gaañ waaye c'est de l'art Papa Ndiaye lii c'est de l'art ah? culture la te mën nañ ko exporter kii mën na dem fu nekk ci àddina ah Bamba damaa génnoon champ bi de euh, mën na dem fu nekk ci àddina parce que boo ko yóbbulee tubaab dina ko jaaxal parce que xamu ko mais sa waay laa bëgg a ñëw ah. lan moo tax bi ñuy di feet yow nga nga kontaan waaw xam nga boo yoree say gone waaw nga yëg si ñoom xoolal tëddin ba nga eh, Bamba jëlee ma large bi waay nga yëg li nga daan yëg sa bopp dangay xam ne réussir nga rëcc nga quoi ndax li gën a bon ci àdduna mooy nga nekk ci dara amoo ci relève waaw wax nga lu boo nekkee ci leen da nga fexe am ay relève ba tax li nga doon def du dee dëgg la lu garaaw ci mission wala ñun école lañu yor mhm. barki maam Cheikh Rafal école lañu yor bu doy waar boo xam ne simb bu ñu xamoon li ci ne dëgg Papa dañ koy téye a bu fekkoon da nga ko yemale sa bopp kenn du la jox àllarba parce que doo fi bàyyi lenn te kon la nga defoon day dee mais da ngaa def formé ay nit ñuy def bay tax bay defal ñeneen ñoo xam ne ñi ngi defal ñeneen dëgg la ñun loolu la ñu yor fu mu nekk nii mhm. booy

nga bañ ko da koy bàyyi mais boo koy bàyyi fexeel bàyyi ay relève yoo xam ne nii maanaam dinañ la wuutu nga topp seen ginnaaw di teg ci kot mhm. loolu laa gëm mais boo ko yemalee sa bopp après loolu day day fay mais xam nga ni kii ndaanaan la mhm. xam nga tax mhm. ndaanaan mooy mooy def dara ba ñëpp ni dañ koo bëgg mënu ñëw ne kaaleen jël li ne ci moom sotti ko ci ñoom teewul ku ci ne la nga ca am mu nangul la ko muy sa wërsëg parce que mag ñi dañ ne xam-xam ku iñaan du ko yor ndax bu deewee da koy yóbbaale. wallaay dëgg la xam-xam dañ koy jox koo xamante ni. Mm-hmm. ñàkk na ki ñaan yéen na ay raxam. mais naa léegal leen de. Mm. moom mii bu ànd ak sa waa ji. waaw ñu dox li ñuy dox ak seen rakk jee. waaw dox jaar fi ñu war a jaar. Mm. ñoom mën nañoo valoriser si. mën nañ ko valoriser man ci li ma gis ndax kii. ak kële ànd nañ def yu affaire yoo xam ne nii tey. ñoom mën nañoo yóbbaat simb fu raw fa mu nekkoon. wallaay dëgg la ba pare maanaam pourquoi mhm. ko mën a dem ba yóbbu ci biir saal yi. Mhm. mooy yoon waaw ay grand que festival yu bari. Mhm. Euh, laay ananas daan na ko def. waay laay ananas daawul dem festival te yóbbul feccikat. te yóbbul simbkat. te yóbbul simbkat te daan boole feccikat yi ak te bu ñu demee tubaab yi foo lions yi duggee rek. dañuy gis leneen. spectacle la te dañuy jaay Sénégal. li lay wan lii aar la tey ji ñoom ñaan ñi bu ñu génnoon rek wàcc mbartal mi di nga gis ay xale yu leen topp ànd ak ñoom dox. am na lu mu àndal boo moytul dañuy ànd dem piki na lu mu àndal maanaam bu ñu génnoon fii rek lu waaye jàppoon da koy bàyyi topp leen mbaa ku ñu romb di nga gëstu xool li ñuy def donc aar la man beneen bi ma bëggoon xam est-ce que tey simb nekk seen gagne-pain moom ngeen def métier di ci liggéey mais est-ce que yéen a seen bopp waaw moom lañ def suñu gagne-pain maara bu ñu mm-hmm. waxantee dëgg tey maanaam nit ki kenn du ko feebaram ak sëriñam ak ak ak li muy tedde dëgg la boo ko xeebalee rek lu ko dal ëllëg yaa ko teg mm-hmm. te ñun ci simb lañu yaakaar. Mhm. di ci liggéey di ci am lu ñuy yóbbu suñuy kër. Mhm. tey ñoo ñun dañoo war a jàppale pour ñu mën a am lu ñuy yóbbu suñuy kër ba ëllëg du ñu mën a tàllal kenn loxo wala ñuy jël lu ñu moomul. Mhm. ndax ku arrêté simb rek jàppal ne yaa ngi indi loo xamante ni tax bàyyi woo ci xel. non loolu moom loolu moom dañ koy ñaan quoi dañ koy ñaan suñu ay autorité ñu bàyyi ci xel ni ñu autoriser làmb mu am sécurité ñu di ko def donte léeg-léeg mu am ay violence su ci am ci ci ci la bokk ñu autoriser nawetaan ak yeneen euh, culture wala yeneen sport muy am nañu autoriser simb si xool nañu leen encadré euh, ñiy simb dem yóbbu wut ay këyit bu jaree ñu dagg licence ñu dagg licence bu jaree ñuy dagg ay assurance ñuy dagg ay assurance ba ku ci gaañu wala nga feebar ñu mën la jël en fexe xool nan la ñuy contribuer autant ci ci ci économie wu dëkk bi mais ñu bàyyi leen comme seen métier la ñu simb wutal leen ay autorisation même bu jaree ku ciy simb ku ñu ne la da def nangam pour auto police bi ñëw taxaw fa wala ñu wut ay GMI yoo xamante ne ñoo koy gérer ñu def ko da koy jar dañ koy jalal ñun parce que ñun kaa ma xamal la waxuma la xaalis bi ñu ciy am mais ñun hmm. culture simb lañu bëggul mu dee fii Sénégal maanaam dëgg warul dee bëgguñu mu dee te ñu tànk ñuy dund insha allahu rabi dinañ ci xar suñu tànk tubay ba du dee xam dañ koy def ñu jàpp ñu doon ñu ay liif wala ñuy def ñu ñu police tëj ñu bàyyi ñu mais duñ ko bàyyi mais li nga wax rek jaar leen ci yoon ñu teg leen ci yoon yéen mais xam nga lu ma bëgg man hmm. Hmm. man pour man yéen war ngeen mën a jël simb si ngoon si yóbbu ko guddi gi ci biir saali ñi dagg tikke sañce dëgg la xoolal mën nekk dëgg la lu mën a nekk xoolal yàlla mën na lu ne te mën na ne. ni ko bëgg ñooy ñëw. dëgg la yóbbu leen ko ci biir saal yi mm. am seen autorisation. tuddee ko ay nit. Mm. comme ni gars yi di tëggee seen soirée mara xoolal. Mm-hmm. def parrain def marraine xoolal. Mm-hmm. tëj seen saal na ci biir foo ba mu neex leen. Mm-hmm. na ne. yéen mën ngeen ñëw yóbbu affaire beneen niveau yóbbu ko feneen dëgg la loolu yi def nii sax te man maa ngi xaar xam nga jaraa mi ngi defar théâtre bi Amadou Jara mm. monsieur le kooku ni mu bëggee culture ni mu bëggee culture maanaam bu ko bu ko Sénégal bëggee woon culture mm. kon kon culture romb na fii Amadou Jara mm. barke alxuraanu karim man dama koy dégg rek barke démb lañ dem théâtre vérité bi di visiter affaire yi mais beneen affaire la mu rafet waaw ne su mm-hmm. yoo xam ne damay invité ay gaynde ñu ñun il faut artiste yi ñoo ko mën a doxal ndax Jalla li mu ci war a def na ko ci ba pare kon artiste yi ne Pikine ñoo war a gën teg fa ay programme yoo xam te ne nii maanaam ku ko xool dina xam ne lii nii. mais Mara nag wax na dëgg parce que nañ ma demal ci Jalla. loolu la saf. am damay sinam loolu la saf. mi ngi naan la defal lu la saf Youssou Diop la moo doon moom laa doon jël ci flambeau bi noonu quoi dèjà booy bii ci kooku lay roy quoi moo tax Papa laaj ma ndax moom la euh, moom bu takkee ba génn da nga naan waaw moom da nga la gisee gis nga eh, aada ñu nuy tax ah non koy wax loolu te est-ce merci beaucoup Bamba pour cette très belle complicité mhm. merci mhm. Mhm. fi ma ko def noonu am na ci jour boo xam ne maanaam 9h 11h ci bëccëg laa dugg ci pax mi ba 9h su guddi. nga ni maa la ko wax. di pour wax la pour wax la simb rek ñun lim ñu jaral. waaw pour mën a bégal fans yi toog. Ah, ci digg géew bi. secret feeñ na. nekk ci digg géew bi ak ci biir pax mi ñu deñ ñu muur ko suul ko ñu nekk fa ba 9h su guddi. léegi est-ce que xam nga yow yaa ñànk li ngeen ma war a fay ay téeméer téeméer daa bari. non dañ koy ah, jox la waaw parce que man dama daan dem seetaani simb réeke ci génn gi ñuy génn ci pax mi man sama problème moo doon ba xam dañuy solo seen kër jaar ci biir suuf si génne ci pax bi wala dañuy luxus <laughs> dugg ci biir nit ñi ba dugg man xaw woon da jékki-jékki rek ci dugg géew bi Papa Ndiaye mel na pax fa la ñuy jékki-jékki rek ne yëlbat génn non c'est sérieux wallaahi ko mais image yooyu xanaa loolu dinaa ko wéer xaaral mais Mara dëggantaan da ngeen doon suulu ñaata ñaata temps ma ne kon yéen avant ñoo biir pax ñi teg la mu bëgg ak ak ak ak ak maanaam ki ñëw dagg billet dagg dagg fukki dërëmam bu ko ko xeebal léegi benn secret feeñ beneen bi mooy man daan gis ngeen dagg seen làmmiñ bi ay yooyu noonu yooyu ay secret la yoo xamante ne war nañ ko mën a waxtaane non du luy génn mais waaw c'est la réalité la ndax ni ngay gisee ñu jël xal yi di ko sex waaw waaw di ko lekk carrément jël ko muy tàkk suñu gémmiñ ñu koy lekk waaw nga koy gis loolu mooy réalité bi ngay dagg sa làmmiñ wala nga tëdd ñu jël gën teg ko sa di ko di ko dëbb waaw teg xooti bi teen di ci loolu lépp ay programme la maanaam ci ci biir simb la xewee ñun rek ñoo ko xam amul keneen ku koy xam ko xam ni maanaam dugg si woo heure boo dugg see nag pour ñu former la ci simb mm. nga war koo jàng fii fii fii lañ toll mais bu ñu demee ba àgg ci niveau boobu. Mhm. mais sama téeméeri moom ni ngeen ma ko fay parce que man pax boobu jaaxaloon na ma trop. ni ngeen doon def ba génn ci pax bi. affaire yi ñuy sax. <laughs> waaw ak pax yi ñuy dugg. te billet bi ñaata la daan doon. cent franc fukki dërëm. mais ko yokk yóbbu ko ci cinq cent. cinq cent mille francs mille francs. mais ëpp na ko. ëpp na ko parce que li déguisement yi ngeen di ak okkur yi ngeen di def ak yéen seen sangu rek. rek mënuñu ko cee am. Mm-hmm. xoolal ñii solo suulu 11h ba ba 6h ci ngoon wala 8 ci guddi. 9h mais Mara loolu risque la de. 21h. te ci biir pax mi di nga nooyi. 21h doo lekk doo naan. te du tee boo génnee simb simb. xiif sax doo ko def. man du ma simb Mara parce que man <laughs> damay bëgg di naan ay presséa. Ah. <laughs> waaw di naan di seet <laughs> dama koo def ndànd faal. waaw eh. fekk mu tombé ak tàngoor boo fóotee léegi mu wow. Eh. barke maam Serap Fall bas Mbaye mi tëggal Kéba mi laay bon ak samba sama loxo la génne ba sama loxo la génne. daa dégg nga simb yàgg naa formé ndaanaan de. bii ma gas bi ñu ñoom moo duggee damay gas ngeen gas pax mi samba na ma doo dugg ci pax mi naaj bu tàng bi boo duggee da ngay dee ma ne ko amul problème gis nga keroog bi ma duggee borom dëkk bi paa bi moo ne carrément da kii day génn maam ma woo gendarmerie. doo dee ci loxo. da ngeen koy day génn mbaam mbaam. ndax yàgg bi nga yàgg ci biir pax. ndax yàgg bi ñu fay yàgg ak risque bi ci ne. mu tàng jër nga ne ci biir pax mi fa ngay soloo defar sa tàngoor bi yow mi toog di ko seetaan yaa yëg image boobu ñun yëguñu loolu mais ñànk la ama la ñànkaaga fi daa ñàkk rek karaw a tooñ <laughs> daa wattu rek ma koy tooñaale nag sama président ñànk la ilaha illa ndeysaan moom it la sonné ci simb nag moom xaadim lam mii ñànk simb da ko jaralu nekk moom boo xam yow mi tamit jaral la de moom boo xam mun la liggéeyu ma dara simb rek simb jaral na ma lu nekk te boo ko boo ko bëgg boo ko bëggee tooñ rek yàqal simb mm-hmm. ñàkk mais Mara c'est sérieux que nag ñii dañ leen war a taxaw. waaw parce que ay doomi réew mi lañ. te aada ak cosaan lañ yor. Mm, mm. mais war nañ leen boole ba ci biir Sorano. Mm. ñoom di leen fay ndax moom lañ bëgg ne ne. ki ne la bu xamoon ne simb rek. kooku lan la war a yoree njabootam. mais nañ ko dimbali parce que loolu la bëgg loolu la gëm. te ni li mu bëgg li mu gëm ci loolu nga ko mën a dimbali. nañ dimbali. Eh, eh, sànq maa ngi koy laaj ah tey booy simb léegi léegi sax jot ko wax tey da ngay dugg ci mpax war fa yendu doo xiif doo yëg xiif doo yëg mar tàngooru suuf si ci biir doo ko yëg boo génnee ànd ak àll la mooy def loolu amour boobu noonu la moo ko def ci yéen xam nga li ñaan nday bu gis doomam di lakk ci dara mu daw di ko sëbee ba ci baaraam lakkee du doom ji sa la xaw ma ndax dégg bu baax ma ne gis doomam di dem ci taal waaw mu lakk ci mhm. du ci yëg métti ndax doom ji ci rëcc mhm. bu ci doom ji lakkoon ci lay gën a yëg métti ak baaraamam bi lakk mhm. ñun boobu yëg-yëg bi ñuy am loolu du nekk lu ñu mën a dégager du ko expliquer ndax ci xol la nekk dañuy yëg loo xam te ni maanaam ñun mënuñu ko expliquer man bu ma xasee takk gaynde wala ñànk takk amatuñu man amatuma xarit dëgg la man mi damay man maa daf may jàpp ci simb si di ma dompat ak di ma xët ak lu ne la def koo ma gën a solo ci simb kat mais mais mës na mës na simb fenn ñu ñu tara defal la taraanga bu la bett ci simb si ba tay acca acca dimbali ma ba tàyyi ba tàyyi yéene naa la lu raw loolu ndax li ngay def surtout ndand faal gii rek man damay wax naan sama histoire bi ma ci dàkkal à part sama koñ ndand faal la bis ma fa njëkkee dem yóbbu ay booy yoo xam ne ay xale yu ndaw lañ màggaguñu ñoom papis mi ñoom Samba Diarra nekk xale ñoom hmm. ma muñu agsi rek mais bi na ma ana ñuy simbal ñun la ñu ngi nii waaw ñu ne ma yéen ñu tuuti ñii ma ne kon ñoom ñi ngi ñëw wuy yaay nee na nga wan ñu néeg bi <laughs> wan leen néeg bi ñu solo ñu tegalef seen bagage ñi ngi ñëw ma dugg sama ménager ne ma takkal mu gaaw ma takk mais du fëgg bunt bi xanaa ñun duñ ñu waruñ ñëw si wala ñu jël suñu xaalis mooy ma ebbee bunt bi mu jàkkaarloog man dafa ne eh yuuxu daaw waa ji ne ko kii nga wax ne ko du gaynde mu ne ankay ah, gaynde la keroog la ñuy simb ñun ba ñoom teranga ñu amoon foofu barki maam seerafal jox nañu ko bu ñu foree simb dañuy otasu ñoom magu dëkk loolu gàllaaj la woon wala <laughs> du gàllaaj non buñ solo moom leneen la loolu loolu moom non du gàllaaj leneen la non dëggantaan gàllaaj la woon wala du doo salbe <laughs> Papa Ndiaye mu woddoo sarbet Papa Ndiaye mu sol jasneer ah. bokkul walaay bokkul mais mais nag ama yenn saa yi ñun damay gis simbiskat yoo xamante ni dañ naan la gàllaaj goo faral indil ma ko simba ëpp misik làmb ah simba ëpp làmb eh booy yi mbër yi fii ngemb nii yëpp barki maam serafal ku ci ñànk jàppalewul yóbbu la wala man wala keneen kër yu baax yëpp sëriñ euh, gaay leen ko xamal kon gàllaaj yi ngeen di takk nii du du ay faux gàllaaj yu ñuy li mbër yi fecc bu ñu woon gaynde duñu fecc la bu rafet lu fi mbër fecc mu neex ci gaynde nga ko jële gaynde ko monté ay Ama Baldé lu mu mës a fecc ay ñi saala ko monté la dëgg la ay ñi naa ko monté hmm. ñànk mi monté na ba tay li Balla Gaye di fecc nii booy ñooñu ko daan tëggal bàkkam bi muy fecc nii hmm. booy ñooñu ko daan tëggal ñu koy fecc ñu jël ko tëggal yow tëggal loolu am <laughs> oh. ci Sénégal. Sénégal fekk boo xam ne. dama ko doon gis ci ci gaynde yi te léegi dafa raar xam nga léegi gaynde yi rek ñu ci bari simu si man li tax simu yu bari moo ko seetaan dañuy fecc suus dañuy fecc ay baaraamay mburu ak bër te man bugguma yoon <laughs> noonu man damay wax rek man man Simba su ma ko seetaanee. Ah. su ma bëggee seetaan suus. kii moo bon non sérieux. non gën guy suus gën sax naan ni xale yi lan lay ñëwee. naan ni xale yi lan lay ñëwee. fecc ci kàllaama bi xew bëgguma yooyu. dafa am benn fecc boo xamante ni ci Simba tësbin. waaw noonu la tudd. mooy rëmsëm. rëmsëm lay wax rëmsëm rëmsëm. noonu la tudd. waaw loolu dama ko bëgg. dafa góore na loolu boo leen tàccoo dafay gën a neex mu baax boobu. loolu moo jaay ko mën kii kii mu def léegi loolu mu daal la ko la de aada da nga bàyyi. non bàyyiwoo. waaw bàyyiwoo kay. yow boo bàyyee dama lay mere kii li mu def ndaanaan la dëgg moo koy def maara bi mu naan bërëb tayetu ko sax. déedéet bi muy jóg tay ko. waaw mais daa jóg fu mu war a jógee man looloo ma daaneel. daa jóg fu mu war a jógee. looy def fexe koo mokkal barki Serigne Touba Mbacke. te euh, waaw ñu mayaat gaynde yi ñu def benn kii waaw tëmsel boobu ngay wax bëgg naa ko ah ñànk mi ngi woote ndeysaan ah nit bu baax la ñànk bàyyil ma woo la xam naa ne du ma nekk direct sax di jël appel yooyu papa Ndiaye koy def mais yow dama lay wuy parce que suñu grand frère nga boo wootee dañ lay wuy yow tamsel boobu waajal ma ko moo jaañ feccal ma ko. waaw ah, waaw pourquoi pas. alaaji ñànka. maa ngi lay siyaar. yaa ngi en direct sur la 7TV. ma doon ziar gis nga ah. waaw ñoo gën a bëgg. di rafetlu émission bi rek. Mhm. di kontaan si yow ak papa Ndiaye. ndeysaan. ak Ama Cokale mhm. ak Papa Jaraaf moo jaañ ak tëggkat yi mhm. en en tant que simbkat yaa ngi toog yaa ngi déglu booboog léegi Ama li muy wax ci jafe-jafe yi ngeen am ci seeni wàllu autorisation ak yooyu étant le président des Faux Lions euh, ban euh. message nga ci mën a lancé hmm. waaw di rafetlu affaire rek mhm. ndax ñun lu dul simb mbër mi day bëri pour liggéey. Mhm. góor ba pour liggéey. Mhm. moom simbulanam mooy suñ teraanga. dëgg la. ci la ñu yor suñuy njaboot suñuy jabar. Mhm. ak di si def social nag. di ci def social. billaahi bu leer. bu bëri. ak yeneen nag yeneen yoo xam ne simb dañu war may loo xam ni. muy éducation ndax dañuy liggéey def foofu kafuñu. dëgg la liggéey la foowu leen. ndax beneen weer mu am quarante personnes wala cinquante personnes. seen groupe bi day am quarante personnes. waaw da koy ëpp. wala cinquante personnes yow xam nga si dara da ngay ñëw programme. dëgg la. léegi booy su ñëwee si la ñuy wut lu ñuy joxe seen yaay seen papa seen i jabar seen i doom. Mhm. dëgg la. di si sol ay yére. Mhm. léegi kooku soo ko bëggee xañ lool day sàcc ji mbaamu agressé ji. wallaay dëgg la. wallaay dëgg la mais kon ñun dañu war a dimbale jàppale ñu fu ñuy simbee am këyit ñun ñooy suñ sécurité bopp. kenn du ñëw dina yàqal. dëgg la. ndax benn am bu ñëw nga ñëw simb ba ko yàq nga xool am doo yàq. bu ñëw xool ñànk amoo sañ-sañu sax naan da ngay jéem a yàq wala ngay def leneen. dëgg la mais ñuy ñëw di seetaan simb ay noobu lan dañuy sol mel ni kuy dem xew. mais kon simb kenn du ñëw nga solu ba rafet ñëw di xeex wala ngay xuloo hmm. ñun dañuy foofu pour lu ñu yóbbu suñu kër mais pas violence violence man am na simb bi hmm. en tout cas en tout cas message bi xam naa ni ñi kilifa yi dégg nañ ko dinañ ci ànd ak yéen luñ ci mën a def ñu def ko ci ba ngeen am indépendance ci seen liggéey mu tegu ci ay charte ngeen di ko def comme ni ñëpp di defee seen bos ni may ñëwee ci télé bi liggéey mbër mi am combat dem bëri ji jour bi war a fubali fubali ki mécanicien bi xëy liggéey yéen itam ngeen mën a xëy dem simbe noonu am lu ngeen yóbbu ci seen famille te du ngeen ci am benn problème xam naa ne kilifa yi ko war a dégg dégg nañ ko en tout cas naa ci sa woote euh, programme yi fan la fi ñu toll nii fan nga war a simb. Dalifor kañ la kañ la. suba laay jeexal mais suba tamit damay dem Papa Boy Ginne dama koy simbal suba. Papa Boy Ginne da nga koy simbal suba. waaw incha Gonaas waaw boobu moom dinaa ko seetaan. waaw mais laajal ma ko ba xam xale yi neexit dinañ ñëw. xale yi neexit ba xam dinañ ñëw Papa Ndiaye wuy Papa Ndiaye. ko laajal ma ko lool ma. <laughs> na ba xam xale yi neexit dinañ ñëw. non xale yu saf yi ñëpp a ñëw. <laughs> ñanga Simba Papa Boy Djiné moom dinaa ñëw te dinaa diri Papa Ndiaye mu ñëw. dama dem incha allahu rabbi suba dinañ seetaan si Simba bu soobee yàlla jërëjëf. ah non suba moom ah man ah? dama lay seetaan dama Papa Ndiaye nee nga ñëw nga xool lan mooy aar dëgg barki xam ne damay ñëw dama namb simb damay dem billaay damay dem wax na wax dina ñëw ñaa nga waajalal simb si te xam ne di nga may gan suba insha allah te woo xale yi neex ñu ñëw jaajëf kontaan nañu merci beaucoup <laughs> ah, waxtu mi ngi ñuy xoj li ci des bareetul am dama lay bàyyi tàggatoo en tout cas kontaan naa parce que lii yombul euh, ca 11h laa ko woo ci suba gi parce que démb lañ doon waxtaan nii rek. Ah. naa émission bi dañoo pousse sax suñu invité bi ñu waroon am tey def ko. démb lañ doon waxtaan nii rek li ñuy wax naan waxay indi wax suñu borom suñu def suñu xel ne ci ma ne Papa Ndiaye suba dañuy simb. dama annulé sama invité de. dama la ko pousse ba semaine bee di ñëw woo ko. parce man lay jàpp di ma simbloo fii moom man mën na simb mën naa simb ketam. <laughs> ñu ñu woo ñu am mu nangu ko ne ma dinaa ñëw comme nañu war a waxtaan nag du ma mën a solu mais xale yi dinañ solu ñëw ca 11h laa ko woo mu ne xale yaa ngi di solu 15 heures fi la leen fekk amuñu fayam sa fay kon daan naa wax dëgg yàlla su ma na mais dimbali ma ci numéro am waaw de téléphone bi da koy joxe du ñàkk am na ñu bëgg a seetaan simb dinañ la woo seetaan si wala ñu woo la organiser jël programme ñu ñu woo nga ñëw solo rek dugg seen biir kër bëggal seen doom loolu mën ñàkk di joxe numéro de téléphone bi buñ paree nga wax ñu sa ay programme fan yi fan ngay simb ak yu demee noonu fu la gars yi mën 190. 88 93. waxaat ko. 77. 190 88 93. mais Mara. moom mi mag 190 88 93. mais moom 77 188 boole lii ci lay gunge si. Diop oh waaye Papa Ndiaye yaa ngi wax wax ji. non li bokk na ci li mën a mën a. non je te serre dans mes bras rasulaay. je te serre yow <laughs> mais Papa Ndiaye wax nga lu garaaw. kon koy lii bokk na ci li gunge. lii daa war a dem Serigne. waaw spectacle bu ñu mësul gis foofu. na mën a jàpp le première partie ñu teg trente sabar. ama ànd ak gaynde yi dugg. non tubaab bi jommi kon. ah. Maxu Maxu suba teel woon nañ la ci loolu. Maxu woon nañ la ci loolu Sidi Diop Maxu tu t'adresses à Maxu. il faut amener les faux mais. non bu leen daw de. <laughs> non duñ daw <laughs> ñii buñ doon daw daw ren bi yàggee. atia ñii buñ doon daw daw bi yàggee ndax ah, yàlla mi ngi leen di dimbali ñu ci bari ñoom ñu ngi tukki. non gars yi dañ dem di ñëw gars yàgg nañ dem ku ci mel ne Papis moom ngay wax rek je pense mi ngi bokk ci groupe Yéli Thioune. waaw euh, African Ndigal groupe di voyager lu bari. Eh, ndaanaan fu ne ci àdduna mi ngi noonu euh, donc am kontaan nañu ma bàyyi la nga tàggatoo. c'est normal. dëgg la eh waaw yombalal leen ko. maanaam. parce dégg naa dëgg yow ku yaru nga ku baax nga. waaw mm-hmm. leen def lii def leen lii dëgg la. waaw waaw dëgg la ñu organise simb si bu ñu koy simb ñu teg ko ci ay norme lii la war a am lii la war a am warta am lii warta am lii heure bi lay jeex dëgg la. Mm-hmm. dëgg la. kooku ak hmm. waaw gunge nit sax day yëg yëfam nit day yëg yëfam nit day yëg ni fii lii fii la wërsëgam ne. jërëjëf Amadou kontaan nañu suñu xol seet na ñu ngi lay ñaan hmm. a jàpp. waaw waaw waaw waaw ndeysaan yàlla na yàlla jubóole macha allah yàlla na yokku yàlla na yokku ndeysaan mu jottali leen ko man na sëg man na sëg mm-hmm. amiin yaa rabbi yooyu yàlla yàlla defal la jàmm waxtu yu jeex na une minute moo ci des danga may tëm sëlal rek mu jeex Papa Ndiaye suba ñu dellu si non man kay ni leen mataar yóbbu rek nit ñi sama sama sama rakk si war na cee taxaw ah, bu dee ñetti gaynde sax ñu dem ambiance def show ate moo jaan neel bërëb ñu ñu ñu tëmsal mu jeex ak